asalaamaaleykum mbokk internetu Dakar People ñu ngi leen di nuyu tey nag bi ñu xëyee ñu am naqar ak tiis ak mbetteel kii di soxna Thione Seck muy yaayu Wally Seck di yaayu muumi mi nga xam ne génn àdduna weer yee paase muy lu metti loo xam ni dal na ci askanu Sénégal dal na ci Wally Seck muy jaaga moom lañu wax ni moo génn àdduna tey muy loo xam ne lu metti la mu mel bett na ñu bëree bëri da génn àdduna kii di soxna jaaga muy loo xam ni xëy nañu tey ñu wax ñu ko ñu ngi koy jaale Wally Seck di ko wax yal na ko yàlla may xolu muñ ak famem yépp ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen xibaar fi seen chaîne Dakar People